ko jagleel gendarmerie kilifa yi fi ne jamono jii di ko liñ ndax jàpp nañu ni am na lu ci manqué ñeel wàllu euh, transparence euh, fekk si biñ fi wax contrat d'armement bu quarante cinq milliards de francs fa <laughs> pour yow bu ñu yeggee ci dégg somme bu ni mel ni dugg na ci gendarmerie euh, que kilifa yi taxaw nañ ko lijjanti ko war na ñoo mën a am assez de raison bu waral ñu amee taxawaay boobu waaw ah, xam nga réewum Sénégal moom wax dëgg yàlla léegi on est assez habitué des fe ci ay contrat wu milliards ci xaalis koo xamante ni dépensé nañu ko te. bu ñu ko waxee ne dépensé nañ tel argent ñi nga xamante ni ñooy nguur gu wees à chaque fois bu ñu ñëwee pour ñu am ay dossiers yu mën a leeral mbir mi wala bokk assez de transparence c'est un problème tey malheureusement euh, loolu doon na li nga xamante ni tey jii ni moo nara sax je peux dire tardel euh, liggéeyu régime bi la parce que dañuy obligé nekkaat ci ay saytu dañuy obligé nekkaat ci ay càmbar dañuy obligé nekkaat en tout cas ci ay analyse pour mën a leeral loole yàggul dara ñu ngi wax contrat 45 milliards armement noppee déggaat beneen soixante quinze milliards. te soixante dix huit milliards te li tax mu mu mu mu sensible c' est que fi mu nekkee la. mbaa wàllum sécurité wa yu ni mel xam nga. dañu ne l'armée ak lépp lu mu englobé à savoir militaire ak paramilitaire c'est la grande muette ñoom dina néew lool wala boog dina jafe lool sur ce genre de dossier là ñoom ñuy apporter de des des précisions wala di apporter des réponses in ne le font presque jamais donc mm. tey bu ñu gisee euh, yile di am ah on ne peut qu'espérer que l'État puisse faire en tout cas investigation yi mu war a def maintenant il est vrai en tout cas il est même nécessaire que ñu daal di leeral yooyu les dossiers parce que nag euh, on parle de milliards mais surtout on parle de de de la sécurité intérieure parce que mm. tey xaalis boobu noonu xamuñu Euh, arme yooyu bu dee jënd nañu ay arme wala boog bu dee jënd nañ loo xam ne mën na lor askan wi ci loxo kan la nekk parce que tey bu fekkee ni dafa am nguur gu bees boo xamante ni toog na fekk fi ay contrat yoo xamante ni signé nañ ko yoo xam ne soit arme lay doon wala boog ay ay gànnaay yoo xam ne en tout cas mën na gaañ euh, société sénégalaise et gisuñu ci transparence wala boo gisuñu fu mu aw donc y a problème parce que tey mën na indi lu ne tey bu fekkee ne arme la yoo xam ne jën nañ ko ñu ngi fi doon dégg coowal nervi ñu fi doon dégg euh, voilà ay marron du feu ak yu ni mel est-ce que dëggantaan nekkul ni loolu mooy problème bi est-ce que nekkul ni itamit dañoo bu booboo li nga xamante ni tey mooy force de défense de sécurité yi jënd ay yoo xamante ni objectif bi ce n'est pas pour la sécurité des sénégalais mais au contraire indi yeneen i mbir nekk actuellement Afrique de l'Ouest nañu sant yàlla bu baax te ñaan yàlla musal ñu si cat ñun rek ñoo nekk ci benn benn benn benn euh, situation sociale boo xamante ni sant yàlla donc tey am na yoo xamante ni nag waruñoo toog di ko seetaan am na yoo xam ne itamit waruñoo toog di xaar ba muy ñaw parce que je pense démb xamu barki démb yow yaa ngi ko doon wax nga ni dañu war a nekk magu waxoon naa ko et pas magu xamoon naa ko hmm. donc dans dans cet esprit là dans cette idéologie là il faut tout ñu daal di mën a saytu yile mbir xam effectivement xaalis boobu noonu fan lañ ko dugal mais aussi xaalis boobu noonu lan ak lan ak lan lañ ko jëndee bu fekkee ni jëndee nañ ko est-ce que effectivement aussi mu ngi nekk euh, à la disposition de ñi mu war a nekk à la disposition. Mhm. parce que ça aussi c'est un c'est un autre problème maintenant cas euh, sur facturation yu ni mel je pense que on en a assez parlé maintenant la ñuy xaar effectivement mooy lan mooy gars yi mën a mën a des enquêtes yoo xamante ni dina leeral mbir mi mais aussi. apporter en tout cas plus de crédit et plus de clairvoyance li nga xamante ni mooy koppar yi ñuy dégg à chaque fois et je pense qu'on ne pourra pas dire plus que ça. waaw ouais. oui Momo. oui. waaw waaw et je pense que c'est une bonne chose autorité yi taxaw ngir loolu leer ndax dama jàpp ne euh, discours bi le président Macky Sall defoon euh, bi ñu génnee ci mois de mars. Hmm. di wax ne askan wi. Euh, je vous ai entendu ñu bëri am yaakaar ne président Macky Sall bu ñu jógee si loolu taxawaayam mooy xool ba li naqari askan wi. mu mun ci wut ay saafara ngir euh, yu mel noonu bañ a amati. Hmm. mais quelque temps après quelques mois xamatuma deux trois mois le président ñëw mel ni kuy provoqué askan wi mu mel ni ku ñu jekk woon la nga dem ba préparé wu ñëwaat ne léegi pare naa la ban discours le président Macky Sall doon tenir mooy li fi amoon du fi amaat. Mhm. dootuñu nangu lii ak li ak lii di am ci biir réew mi dama jàpp ne wax jooju fa mu ko tegoon mooy euh, président Macky Sall tolloon nañ ci biir réew mi moment boo xamante ne nii ba xam ñu ngi lekk wala ñu ngi naan du ay préoccupation ndax réew mi santé bi mbir yi mi ngi jàpp du préoccupation benn préoccupation moom la amoon mooy dem wut ay ngànnaay yoo xam ne mën na ko xeexee contre le peuple sénégalais te loolu li may wax c'est des ah. choses yu ñu gis gis ay oto yu bees tàq Mm-hmm. oto yoo xamante ne nii mais dëkk boo xam ne ambulance dafay manqué waaye oto gendarmerie dafa manqué. Mm-hmm. dëkk boo xam ne da ngay gis euh, ci yenn réew ñu dem bay wut ay drone ngir lu jëm ci ñoŋal lu jëm ci wàllu agriculture mais ñun dañoo dem jënd ji ay drone yoo xamante ne nii pour euh, ay lacrymogène ñu mën ko di ko sànni ci kaw nit ñi donc le président Macky ah a investi. Euh, ci répression boobu nga xam ne ne dafa ko doon teg ci ci ci peuple sénégalais bi léegi nag problème bi c'est à deux niveaux problème bi jiitu mooy le fait que mu war a gàddu ngànnaay gu toll noonu mu leer la ne benn objectif la si am muy dal ci kaw askanu sénégalais loolu rek problème la. Hmm. bi si des mooy soo demee ba war a génne koppar gu toll noonu mu leer la ne président Macky Sall jarloon na ko loo xamante ne nii et puis comme on dit à chaque fois secret défense léegi yu mel noonu bu amee nag nit mën na faa lu waale Euh, teq fa xaalis donc loolu lañ ci suspecte le président euh, Bassirou Diomaye fay itam jàpp naa ne euh, nii mu doxalee noon la mooy nañu saytu mbir yi mais je pense que Sénégal jaar nañ ci ci ci ay mbir yu doy waar yoo xam ne ni xew na fi te li ko waral nag moom moo di armement yooyu noonu réew yow nga agriculture xoolal fi ñu ci toll actuellement. est-ce que gënul woon période boobu noonu ñu góor gu ba tey jii sax suñuy wax ay waxu souveraineté alimentaire ba léegi mën a mën a guñ ko atteindre mais période boobu noonu investissement boobu nga xam ne dañ ko def ci ay armes. Hmm. def ko ci ay liif ak i lacrymogène ak yeneen ak yeneen ay drone suñ ko defoon ci lu mel ni agriculture bu ñu ko defoon tey jii lu jëm ci wàllu santé est-ce que yenn problème yi ñuy am ci santé ak yeneen yoo xam ne moom moo ëpp solo dinañ ko am donc dama gëm ne ñoom dañoo investir dans la répression et parfois ci politique est-ce que coono googu nga doon daj pour dal ci kaw askan wi pour sa projet wu troisième candidature mën a jàll pour que li nga bëgg mu am est-ce que alal jooju nga regroupé yëpp boo ko defoon ci askan wi askan wi du ñu pare pour voter la pour que nga mën a continuer nekk à la tête du pays. Mm. donc dafa nekk benn doxalin boo xamante ne lu doy waar la. Mm. mais li sénégalais doon subir ñu doon wàcc sur le terrain moo xam euh, ñu doon couvrir yi jeg yeneen ak yeneen dangay ngay xool xam ne lii dañ cee def xaalis. xaalis bu bëree bëree bëri euh, ci manifestation yi oto yi nga doon gis ak oto yu sànni ndox ak ay mais. gendarmerie période boobu dafa mel ni moom rek moo mënoon a laaj xaalis ñu génn ko ci nu mu gën a gaawee parce que le président Macky Sall benn projet la amoon mooy li mu bëgg dafa war a am à tout prix nag mooy nañu jël koppar gu bëri déjà contrat d'armement yooyu ñuy wax nga xam ne euh, bokkut ba tey ak lii nga xam ne dañoo wax ne tey dafa dafa jaare ci ci gendarmerie te bu ñu waxee ne lu toll ci soixante-dix-huit euh, milliards xamuñu ndax lu toll noonu lañ dugal mais li ñuy gis ci suñu bët leer nañu ne xaalis bu bëree bëree bëri la nga gis oto yu bees tàq tàq tàq. waaw ah, parce que dañuy équipement ak moderniser. oto yu bees tàq sax mu yow ñu doon wàcc ci terrain kay gis nañ ko. oto yu hmm. bees tàq la gars yi jënd. Mhm. lépp parce que boobu projet wu répression dal ci kaw askanu Sénégal pour que manifestation bu mu amati bu kenn génnati ci mbedd yi euh, mooy rejoindre kàddu gi président Macky Sall doon wax ne li fi amoon du fi amaat. Hmm. mu jàpp na nag boobu pare na pour jàkkaarloo ak askanu Sénégal donc nañu saytu mbir moom ba xam qu'est-ce qui s'est parce que d'habitude Sénégal loolu du bett kenn. yu mel noonu bu amee gars yi dañ ci profité boo nee 78 milliards la dina am euh, xëy na fenn fu ñu mën a jaar ba pare secret défense bu xasee ba dugg rek. Hmm. mooy yombalal nañ nit ki mu def si lu ko neex te kenn du ko mën a saytu. parce que tey bu ñuy voté par exemple à l' assemblée nationale ba ne ah lii kat budget bu toll si biir bu amee lu si lënt ne lii lañ ci voté woon mais tey jii loo ne kenn du si discuter dañ naan lii secret défense la. Hmm. donc yu mel noonu dafay euh, ubbi buntu pour que yenn xeetu jëf yi wala luubal alalu askan wi mën faa jaaree. donc hmm. man ànd naa bu baax a baax ci ñu saytu xaalis bi dañoo tooñ ñaari yoon li jiitu mooy dal giñ doon tal ci kaw askanu sénégalais waaye beneen toog bi moom mooy ñàkk transparence ci doxalinu euh, contrat yooyu nga xamante ne nii am na. oui Ngoné nañ ko saytu pour xam en réalité lan moo ci am lu ci amul euh, euh, ci li nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee ni ñeel contrat 78 milliards de francs CFA. yoo xam ne yooyu moom ah sànq ñëpp a wax depuis sànq ba léegi. Ah. <laughs> nga bëgg ay armes trop. sànq ba léegi ñëpp a ngi wax. dëkk bi dëkk bi dëkk bi moo bëggoon affaire arme. d'autant que moom mi ngi wax sànq naan ñi nekkoon sur le terrain bi ñu doon constaté que ni effectivement amoon na équipement doole na ni gendarmerie ci wàllu équipement yi doon am drone ak li ah, génn te gisuñu ko <laughs> ak yi nga xam ne génn te gisuñu ko ak yi nga xam ne ñëw na mais gisuñu ko